Jungle. mooy joxe situation wu bët bi tey alxames fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mars deux mille vingt institut Pasteur jox na ministère de la santé situation wu test yi mu def tey si ñaar fukki test ak ñaar yi ñu def ñaar ñoo ci ñëw positif bon dëgg ñaar ñoo ci amee feebar bi muy ñaari cas importé mooy cas yoo xamante ne dafa jóge bitim réew ñëw ñu wax tam ne ñetti patient yu ñu hospitalisé woon man nañ am résultat tey ne wér nañ tey muy xale bi amoon ñaari at te le quatorze ñu ne woon dafa positif ak euh, suñu mbokk bi xamante ne contrôlé woon nañ ko le 3 mars fële si Géejawaay ñu ne woon c'est un monsieur de quatre-vingts ans moom ak soxnam yëpp ñoom lañ hospitalisé woon ñoom ñaar ñëpp wér nañ c'est trois patients mooy ñetti patient yooyu xamante ne wér nañ fekk ay waxtu ñu organiser ñu génne leen jox nañ instruction direction générale action sociale pour que xale bi am ñaari at mu topp ko ba yaayam génn parce que yaayam dafa positif te ñu ngi koy faj actuellement ministère de la santé action sociale mu ngi wax ne patients yi xamante ne ñu ngi leen hospitalisé yépp muy euh, fanweer ak ñett parce que cas yu déclaré Sénégal fanweer ak juróom-ñett la am juróom yu si wër bon fanweer ak ñett ñoo def hospitalisation ñooñu nag ñu ngi leen toppatoo bu baax ten état de santé mu ngi évoluer ñuy demander population yépp ñu respecté ci xamante ne ay digal la jóge ci ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi leen di remercier bu baax.